leen nag vacances la ñu nekk donc dañuy def yëfu vacances jëfe lu neex jëfe loo xam ne stress bi day wàcc ma nee naa leen euh, soo leen jàkkaarloo 2STV kenn waru am stress kenn warul mer ñëpp a war a féex xol yi dafa war a féex ñu daal di doon benn kontaan daal di jëmale nag ci programme yi nga xam ne ne moom la 2STV yi tëral ah tout au long des vacances pour ngeen békk pour jeunesse bi békk pour mag yi békk ñëpp daal dañuy békk tey nag ci émission bi nag dama ciy ànd ak sama frère sama xarit nee naa leen ñëpp samay xarit lañu waaye nag ci am ay soppe yoo xam ne nag sama nitu bopp lañu faaw ba tàmbale ak ñoom tey dama ci ànd ak naanaan bu mag nee naa leen ginnaaw Wally Seck moom mooy la prince des Faramareen kooku nag dañ ko naan Mandiaye Seck Mandiaye nuyu naa la. Euh, maa ngi lay fay Aïcha. ah Mandiaye da nga miin fii tubaarkàlla macha fii eh, mën naa ni sama kër la. alhamdulilah rabbil alamin. ginnaaw bi ma sant yàlla. Mhm. ci bi. Mhm. sant samay ñaari waajur. Mhm. maa ngi sant euh, sëriñ Abdou Karim borom Makarimal Akhlaq. alhamdulilah rabbil alamin sant aussi sëriñ Galas Gànnaar. di gërëm aussi Serigne Bara bi nga xamante ni Serigne Abdou yi may bàyyam. jërëjëf Serigne Bara Mbacke. Mhm. muy sama xarit. Mhm. di sama sëriñ. di sama mhm. wasi la wax yàlla. dëgg la. ñoo àndoon Touba yàggul dara. donc ngi suivre émission bi. ñoom ñëpp sant bu baax di ko gërëm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. mu ngi noonu kon nag ginnaaw bu ñu àndee ki nga xam ne ne moom mooy am dañuy ànd nag ndax nag euh, émission bi dafa xam dafa am tuuti identité su ma waxee tuuti identité mooy day am yoo xam ne daal mënut te ñàkk ci émission bi nag ah, ndax xew mi daal xew mi xew mi ah dañuy defar ba mu baax ma ànd ceeg samay rakk yu baax. xam naka laa bëgg ngeen nuyoo ubbi leen ngeen doog a nuyoo. du ma wax bégal ku leen di bégal ay sa moo leen lappa lappa lappa leppe loolu la xale yi wax fii ci euh, plateau bi nga xam ne ne mooy les plateaux. waaw les vacances de ouf avec Aïcha nuyoo leen mbokk téléspectateur wuy ma nag gërëmuñ dara dañuy nuyoo. nuyoo ak gërëm ça fait deux dañuy nuyoo tënk ko daa di xuus ci événement bi ñu nag ñu doog a gërëm waaw ñun moom ay xale lañ. Mhm. daw ko di soog a door. alhamdulilah ñu ngi nuyoo waa Sénégal yëpp. Mhm. di nuyu suñu mbokk bongo maan yëpp si Sénégal. jërëjëf barke yoo la tibb bi. Mhm. dafa lu la neex. Aïcha seen i tur noo tudd yow. maa mhm. mhm. naka. Mhm. yow yaa ah, naka man Cheikh. Cheikh ah. Aïcha mi ngi noonu am yow dangay daal di pousse ci Cheikh comme saa ngeen mën a déggoo ndax mm. nag micro bi yéen a ko bokk. Mm. alors ma Ndiaye yii nag am ah, a ngi nii Cheikh a ngi nii. ñuy ay gone yoo xam ne nag ñu ngay soog a door nee nañ ñu ngay a door tubaafaka la macha allah fas yéene nag ànd ak ñun ci émission bi gunge la ndax xam nga ne ñun suñu àddina yëpp nag jeunesse la ndax ñun ñëpp ay xale lañu donc lu ñu gis loo xam ne day dem rek mm. dañ koy jéem a nag indi suñu plateau rek ah nga yóbbaale leen rek ndax yow ñi ku ne xam ne naanaan nga waaw noonu la aar bi moom mm-hmm. kenn moomu dëgg la te ku ne mën ngaa bay sa waar dëgg la da ngay ñeme takk sa fit rek mm-hmm. te xam ni te gëm sa bopp te yàlla dafa dem ni sax da ngay sama doomu baay. sekk si nga naar. dafa lu la neex. waaw àdduna noonu la. ma na ngeen jàpp fi ngeen jàpp. waaw te gëm ni ngeen gëm. Mm-hmm. ñoo bu daggul yegsi ndax dañu ne olof Njaay dañu ne jàpp taw baay mooy tax a yegg fa nga jëm. waaw ah, kon baax na ah, waaw yow pelloo fi xam. Ah, <laughs> xam nga ne askanu géwél soo leen invité ci plateau day xaw a métti. ndax yow mi bokk ca naar yi ak séeréer yi da ngay xaw a réer. alors <laughs> ma Njaay. Hmm. ah tubaarkalla macha allah su ma waxee ne min nga fii mooy danga bokk ci kër gi. Hmm. yow 2STV mënu def dara te boolewu la ci. c'est vrai yi mu mënu ubbiwul dara te du la ko ubbee yow mii. dëgg la macha allah nga nekk sunu frère nekk sunu doomu ndey. Hmm. nekk sunu xarit nag. ba lépp loo xam ne dañ koy jëfee suñ la wooyee dernière seconde sax yaag jur ngeen daw bàyyi li ngeen def yëpp yaag ngeen daw ñëw fii moom mooy yee sama kër rek ah. <laughs> jur rek ci efficacité non <laughs> bon il faut mu jug parce que Aïcha Aïcha moo ñu woo dëgg la te Aïcha suñu jigéen la ngeen ñëw suñu grande sœur jeex na il faut nga teew mu ngi noonu ah. <laughs> alors donc nag vacances de ouf yi nga xam ne ne tubaarkaar 2 euh, def ko def programme def ko pour jeunesse bi dañ ko def yu fu vacances euh, affaire bi nag dañuy def relax relax hmm. musical relax waxtaan donc tey dañ fiy waxtaan mais en même temps dañuy happy hmm. dama nag euh, balaa ñuy dugg ci thème parce que dafa ñu waxtaanee benn thème boo xam ne thème de société la. Mhm. buy laaj nit ñi ndax yéen porteur de voix ngeen. Mhm. seen waxtaan day neex askan bi. Mhm. seen waxtaan day jàpp askan bi dañ koy jàpp. donc day dugg ci xel yi dugg ci xol yi. donc loolu am na solo. dama bëggoon tuuti nga tënkal ma tuuti instant bi fu carrière bi toll fi mu ne. waaw carrière bi fi mu toll. mooy que wax yàlla maa ngi ci sama liggéey. alhamdulilah. maa ngi ci sama liggéey ànd ak samay xarit. ànd ak waa Pencum Faramaren di liggéey ak ñoom. ñu ngi nekk euh, Golf Sud. Golf Sud. tey nag mooy soirée bi. Mhm. Pentola. alhamdulilah rabbil c'est tous les mercredis. c'est tous les Pentola ak Mandiaye Seck. di ci woo àdduna bi yëpp nag. Mhm. képp kuy soppee Mandiaye maa lay woo. Mhm. tous les mercredis Mandiaye Seck mi pentola mi liggéey liggéey boo xamante ne nag liggéey bu mm. bien la. dëgg man ak sama staff. Mm. ak sama manager Jules Teranga. ak ñoom Ahmed Niang ñoom Ahmed Ndiku. Mm-hmm. waa Pencum Faramaren yëpp ñoom laay ndekki ñoom Tafa xam nga. Mm-hmm. ñoom Pape Mbay mm-hmm. nee na ma Mandiaye na nga yeggaleeg jàmm. ndeysaan waaw mu doon ku ñàkk ñaan wax dëgg yàlla. ñoom Naar. ñoom Pawsu ñoom latir su ma limee damay juum. da waaye ñëpp ñëpp ñu ngi liggéey ànd ak Mandiaye Seck. dëgg la dëgg nag ber na orchestre am. Mhm. Ah, ber na ko fi mu ah, nekk nii maa ngi ak sama yoonu bopp. jërëjëf ànd ak samay xarit. jërëjëf ànd ak samay mbokk. jërëjëf. te e, incha mhm. maa ngi ñaan yàlla ak yonent bi tuba Serigne Touba. ñaan nga ma yeggaleeg jàmm. alhamdulilah waaw. comme sama yaay ñaanal na ma dinaa yëgale jàmm sa baay ñaanal na la sa yaay ñaanal la say mbokk ñaanal na la sëriñ Baara ak sëriñ Galas Gànnaar ñaanal na sëriñ Abdou Karim doomu sëriñ Abdou Karim yépp soxna ummi waaw sëriñ Salim waaw ak euh, sëriñ Xaadim ñëpp ñaanal maa ngi sant ñëpp njabootu sëñ Abdou Karim yëpp kon loolu ñoom laa yaakaar tey ak ëllëg alhamdulilah yaakaar nga ko baax yaakaar nga nag ñoo xam ne ne soo leen yaakaaree dem <laughs> dama ni kon nag fu ne nii euh, Ndiaye ber na li nga xam ne moom mooy daaraam. Mm-hmm. tubaab fakala macha allah nee nañ nag euh, taalibe bu jàng. Mm-hmm. su taree nag day dem. dëgg kon nag tubaab fakala yaa def na tari nga. Ah. jël nga sa waar jël nga sa yoon ànd ak sa staff bu am solo sa staff bu dynamique. Ah. staff boo xam ne ku leen yee 2h ñu ñëw 16h. Ah. kon loolu man dama koy professionnalisme boobu dama koy dama koy saluer. Mm. ndax euh, artiste dafa war a disponible. staff bi la. artiste dafa war a disponible te xam nga ñun yéen nelaw rek ngeen def eh, eh, waaye staff bi ñoo nekk ci ginnaaw di eh. liggéey di def liggéey bu am solo man dama koy soxla ci staffu artiste staffu artiste ñoo war a nekk artiste bi ñoo war a nekk image artiste bi donc ñoom ñoo war a jëfe artiste bi donc lépp loo xam ne ne day rafet rek ñoom ñoo koy rafetal lépp loo xam ne day ñaaw rek looloo koy ñaawal kon nag dar na daara am chaque mercredi mu ngi foofu ca pentola kon tey maanaam acapella day am dara il faut kon nga wan ñu tuuti rek defal ñu benn acapella ànd ak say doom day say rak ñu mën a xam tey Pentola lan lay jëfe yaa ngi leen wax fu ñu génn ñu génn fa jërëjëfe maam Cheikh Mbaye mi ay maam Cheikh mu alaaji jërëjëfe maam Cheikh Mbaye yor yor ndeysaan rabbil alamina sant yàlla di julli ci yonent bi nag di sant sang bu mag bi Sëriñ Tuubaa Mbàkke Bàllaay sa mi nga xam ne moom lépp la waaye yow eh, attention eh, plateau bi nag ku fi fas yéene teg tànkam faaw nga doon daanaan ndax ju lii ñuy jëflante nii <laughs> uh-huh. da nag yëfu ndaanaan ndax nag improvisation ak li nga xam ne mooy acapella dafa yombut mm. ndax ñii nga xam ne minante wuñoo manjaay mii ñu yor seen bongoom manjaay yor li doon leader vocal yor baatam ñu teg leen fii mosuñoo gisante mosuñoo xamante mosuñoo jouer ensemble ñu teg seen yëf Mandiaye way ci kawam ñu topp euh, notu Mandiaye mm. Mandiaye topp seen not mm. yooyu ndaanaan rek a ko mën ah, noonu la li nag eh, eh, eh, yombul mm-hmm. parce que mën naa ne ñoom dañoo tarbiyu mm-hmm. ndax aar dafa doy waar dëgg may gisee nii man sept ans mm-hmm. maa ngi ci àll bi dëgg di waay ay sim di waay ay mbapat di waay ay ngénte di waay ay céet te su ma neexoon ma ni dama bokk ci famille bu baax. Mhm. damay bàyyi ba mu jot. Mhm. non ma dem way. waaye way du noonu. du sa mhm. papa dee way rek wala sa yaay di way nga ni da ngay way. dëgg way cër la yàlla moo la koy jagleel. wóor na. nga. moo tax ma dem jàngi ko. dem naa Louga dem naa Bambey. dem naa Thiès dem naa Kaolack dem naa Gambie topp gaynde yi di way ay sim. loolu lépp eh, jàng la. te tarbiyu dafa am solo. am na solo xam nga. Mhm. boo jaaree ci euh, rue bi. Mhm. di nga xam lu bëree bëri. dëgg la comprendre nga. Mhm. dara du la du la mën a wax dëgg yàlla dara du la mën a téye. man pour man. te wax dëgg yàlla ma ñëw aussi Ousband. ñu jàngal ma musique. jàngal ma lépp. wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla bu baax. yaa ngi sant yàlla bu baax daal da def li nga xam ne moom mooy tarbiwu kon nag moom day kontaan ci xale yi nga xam ne ñëw nañu tey Ibrahima ak am ndax nag vraiment euh, liñ fi def sopp naa ko. ndax nag dégg ngeen digal dégg ngeen not da ngeen am dégg-dégg. ndax mënoon nañ koo fexe way ngeen génn gàmm boobaa dama leen ni bule ngeen jaar ne ama ci kersa ñun ñun moom yàlla dafa def ne dañuy topp suñuy ginnaaw tànk grand frère yi jërëjëf mooy ay ñoom Ousseyn ay ñoom Vénia ay ñoom Vé Mbaye waaw Ousseyn ñooñu mag lan mhm. yaatu mhm. jël ñu boole ñu seen bopp dëgg la barke yonent bi surtout mhm. moom fu mu fekk mhm. booy jàppaleen day baax insha am na solo Ousseyn moom démb rek la fi jógee macha allah kooku uf na njaboot kooku yàlla da koy fay xolam dafa baax uf na njaboot bi uf na njaboot rafet na Ousseyn maa bu baax te Sénégal fii lu fi waay wax Ousseyn Mbaye la jërëjëf kontaan nañ kontaan nañ léegi nag euh, dañuy def li nga xam ne ne moom mooy une courte pause laay saar ñu daal di dem pub daal di dikkaat fas yéene nag jëlaat air tuuti naan ci yu sedd ndax faaw may naan faaw nag ma njaay di naan ndax dafa bokk sama yëf <laughs> kon nag dañ leen dem pub te ñëwaat ayca noonu nag kooku nag mooy Omaro mu Cheikh Béthio Omaro mu Cheikh Béthio moom defe naa ne ku ko wax xam na ko ndax nag Omaro da di animateur fii ci 2STV ba pare doon taalibe Cheikh Béthio Thioune nekk jaamu Serigne Saliou fas yéene nag def événement bu am solo foofu ca Gambia te wax suñu waxee Gambia ni ma leen ko waxee euh, Sénégal ak gambi c'est la même chose donc Sénégambia lépp loo xam ne Sénégal jëflante na ko Gambia euh, ñun jeunesse lañ koy fexe euh, pérenniser. fexe ko eggal yi nga xam ne relation boobu noonu day daal durable moo tax waa Everest Production label bu mag boobu nga xam ne mi ngi fii ci Sénégal waaye doomu Sénégal ñoom ñoo ko daal di euh, fexe yëkkati ngir dimbali jeunesse sénégalaise ngir dimbali aussi jeunesse gambienne donc nag ñoom ñoo jël Omaro Cheikh Béthio yóbbu ko fi nga xam ne moom mooy Gambia la 5 août la macha allah foofu ca hôtel Paradise hôtel ñu fas yéene ko tëgg lu am solo. Mm. ma Ndiaye sa sa sa xarit sa doomu ndey sa mbokk moom mooy dem Gambie. loolu bu ma ci waxee Aïcha. Mm-hmm. dama ciy sawar. Mm-hmm. ndax Omaro ku ne xam na ni sama xarit la. dëgg la dëgg yàlla. Mm-hmm. moom nee na Sénégal. benn waykat laa am. dëgg la muy Mandiaye Seck. ndeysaan ba mooy suivre. Mhm. di di di di dajeeg sama papa naan ko damaa gis sa doom. mu mhm. mën a way lool. dëgg la Ousmane baa gis na ko. Mhm. sama ne ko heureux man gis gisuma ay ba xam nga. billaay billaay. moom moom moom moo njëkk a dem mooy ki njëkk a dem sama papa. ne ko sa doom ji daa mën a way. ñàkk ñaan ko kay boobu maa ngi ci simbi yeeg mbapat di laaxatu. ndeysaan ndekete moom gis na ma bu yàgg. ba waaw moom ku ñàkk ñaan la. kon wax digg yàlla cinq août. Mhm. képp kuy soppe ma Njaay Sekk mhm. ak waa Pencum Faramaren ak Goney Faramaren yëpp. mu bëgg ñëpp dem Gambia. jërëjëf le 5 bii di ñëw. Mhm. ñu dem soutenir mm. Omoromu Cheikh Béthio Omoromu Serigne Saliou mm-hmm. Omoromu waa kër Serigne Touba déggal ma lii non di nga yeggaleeg jàmm incha allah incha allah rabin mu ngi noonu nag kon nag ni ko ma ñaay waxee dina eggaleeg jàmm ak salaam mm-hmm. ndax Omoromu Serigne Saliou la donc képp koo xam ne ne taalibe murid nga ak taalibe beneen tarixa macha allah ñu ngi lay invité ci événement boobu noonu man maa koy jiite nag maa nga fa xam ngeen ne man moom Omoro lu mu ñoom ñoo leen foofu ca Gambia di bi mooy semaine Gambia semaine bi dama ko may émission bi waa Gambie parce que ñoom defe naa ñooy suñu fans number one ñoom dañ ñuy seetaan hmm. programme de huit heures à minuit à deux heures du matin ñu ngi ci 2STV ñoom dañoo bëgg 2STV ba jeex may nga ko ñu baax mhm. ndax man Gambie mhm. eh, sama dëkk la samay doom fa lañ dëkk. dëggal li muy Lissa. Lissa bébé Lissa ak Mouhamed. dëggal li sallallahu alayhi wa sallam. Eh, samay doom lañ. ay mhm. seex lañ. Gàmbi lañ dëkk seen yaay Gàmbi la dëkk kon Gàmbi sama dëkk la ah. kon nag Mandiaye woon nañ ñëpp di nuyu nag ki nga xam ne ne moom mooy avocat bu mag boobu nekk ca Gàmbi moom nag Abdou Konaté lañ mm. ah, ne kuy bu baax a baax a ñu ngi sa participation ak li ngeen wax ci émission bi am na solo Fanta Sidibé sama doomu ndey boobu noonu nee naa la fàttewuma la fenn kooku nag euh, di Zal Saliou moom it nag Saliou boobu doom moom it taalibe Serigne Saliou la Zal

laay gàmmi kay dem kay est-ce que dem gàmmi dañuy mu neex foo ngeen dem gàmmi ah? mu mel ni ñaari dof yi football <laughs> barke yonent bi nga dem mu ngi mel ni ñaari la ñaari dof yi football tout sax ñu ne bii Cornel Panati loolu xam nga kenn du ko Cornel Panati dëggal bu yaay ay xaruna laay saar tim bongo eh, eh, eh. tim bongo elage tim bongo ak leer leer mu <laughs> Seydina dama ni nee nan lan lan Cornel dina mel ñaari dof penalty nee na banalty. jërëjëf corner sax penalty te góoma de. lii nag dama ko may Omoro. ayca gën a xoolal. bilaay maam Sali wa ñaasi karam. yoo ko salam salam loo daan dee. si Sali wa ñaasi du dee. salam salam. nag dafa neex waaye nag damay ñëwaat ci Mbajaay Mbajaay balaa maa ñëw dañu dem seetaan sa clip bi nga xam ne ne moom moo fi ne ah il ñu seetaan sa clip bi nag mënta ah. li nga xam ne ne moom moo xew ci bi ba am ñu ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy Mbajaay ndax nee naa leen ndaanaan laa fi indi man nag wax ji du bëri eh, man nag wax dëgg yàlla ku ma woo ci ci émission du ma mm-hmm. décroché mm-hmm. waaye appel bi dafa mel ni sama yaay la. téléphone yi sax tubaarkàlla macha allah mi ngi ca biir. Ah. lay saar ah. ubbi leen téléphone yi ndax nag téléphone yi fu ne nii ndaanaanee ngi woote ba comme jotuñu ñu. Hmm. ñu ngi woote ci téléphone yi en direct. bi nag. Mhm. sama yaay la. waaw waaye comme maa ngi émission. Mhm. non koy décroché. waaw yaay yaay décroché décroché yaay décroché. allo yaay. yaay def ko ñu dégg li yaay di wax. waaw maa ngi nii émission dañ ma woo léegi. Mhm. appel yi moo bari na waaye dama leen sama yaay. dama koy décroché. décroché maa ngi nii émission. jërëjëf. waaye xam naa su ma génnee fii léegi dinaa la wuyu dinaa dinaa la woo léegi incha allah dégg nga. yaa ñu ngi lay yaay allahumma jërëjëf def ko ci micro bi àdduna dégg ko. amiin yaay amiin allahumma amiin. yow dañ la invité télé télé télé maa la jur maa la ko ñaanal yow jàmm rek nga am mariage. amiin yaay allahumma amiin. mais boobu boobu la invité nag day sa bàjjan. ah waaye li di. ndeysaan. nan ko borom yaay ju baax. ndeysaan. nañ ko nañ ko kal foofu yaay yaay nañ ko kal foofu. yaay yaay dinaa la woo léegi incha allah je t'aime dégg nga. yaay bul jooy bul jooy yaay. Eh, eh, eh kii wax def ko ci micro bi ko ci micro kuy bàyyam nga ni. kooku docteur Diouf mooy bàyyam. kii xam na suñu xam na sama bàyyi. jërëjëf jërëjëf yaay kontaan kooku muur la dëkk moom docteur ak bokk baay. alhamdulilah rabbil alamin tudd na sama mag ju baax sama. ma ne. kooku sa yaay la kooku yéen a maam papa eh, sa yaay nga tudd samay kooku kooku kooku sama rakk la kooku la invité. jërëjëf jërëjëf yaay kontaan kooku papa Gueye du jaar kooku nga tudd sama baay la. Ah, yaay koy kontaan naa ci yow. gis nga ma. eh waay dama ne ndekete daal sama gars xale yi saf nañ xorom dama ni mbokk téléspectateur yaay dafa dugg mm. xam nga laay saar yéen waa tim bongo dinaa jëflanteeg yéen lu ñaaw king of bongo waaw ama def ci of bi king of bongo déedéet pas yéen dafa am tim bongo bu am ne fii boo xam ne waa ñoom tim bongo la laay saar mooy président organisation boobu noonu laay saar réalisateur moom mooy président tim bongo laay saar Euh, defe naa yéen waa Timbongo ubbi leen téléphone yi ndax nag fu ne ni ndaan yaa naan yaa ngi woote mm. bëgg a dugg jëflante ak ñun teraanga bëgg a wax ak ñun kàddu yu am solo mën mënuñu dugg nag ñu ngi dugg ci téléphone personnel yi ndax yaayam woote na mm. wax na lu am solo ndekete ndeyam gi sama mag la mm. ndekete ndeyam gi ñoo bokk benn baay mi docteur Diouf papa Gueye du jaar di suñu bàyyi kon nag loolu ca mbuur la defe naa ne Mandiaye waxtaan bi moom après day di ko def pelloo ca biti ñu mën a waxtaan nag wax suñuy mbokk ndax ndekete géwal laa rek <laughs> ndekete daal géwal laa rek jul <laughs> ndekete rax naa géwal mi mënu woon doon neen daal affaire bi la ko lajjee noonu ma jooyloo Ndiaye dafa fu ne ni émotion da yéeg damay daal di ànd ak uh, ki nga xam ne moom mooy régie yi ànd ak Laye Sall ak leer leer mu Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ngeen may ma clip bu ma Ndiaye bi ñu daal di jël pause émotion daal di wàccaat ndànk ñu doon ko xuus ayca may leen ma clip bu ma Ndiaye nag clip la ca Mandiaye Mandiaye bi mooy ban clip. bi mooy euh, morceau bi ma woy Yaay Nogoy. Yaay moom ku xam na ni mooy sama maam. waaw te moo ma yar. Mhm. moom laa xamoon xaw yaay xaw ma woon baay. yal na ko yàlla yërëm nag. yàlla xaare ko àjjana. moo jur Papa Thion. moo jur Papa Ousmane. Mhm. moo jur Mapenda. ndeysaan moo jur Kéba. moom laa njëkk woy sama première morceau. Mhm. bi woy sama premier clip. moom laa ci way ak way ci Pape Ousmane. waa ci Pape Ousmane. ndax ku ne xam ne clip def. waaw ma eh, day toog télé bi sax nit ñi naan ana yaayam. ndeysaan xam nga. Mhm. waaye eh, ma koy nuyu bu baax a baax moom aussi Pape Ousmane. Mhm. muy sama sama papa di sama xarit. dëgg la di ku rafet xol wax dëgg la ñu firndeel ko ñu seede ko. waaw mu ngi noonu donc ba nga defee clip bi mu bokk sa premier clip. Hmm. Euh, def nga yeneen i clip. non bi mooy premier clip. waaye ñu ngi waaj beneen beneen clip bi. Euh, morceau bi mooy weddi woon naa bëggeel la. bëggeel la waaw incha allah bientôt léegi incha allah dinañ ko kilib. di nga ko génne damay ragal nag boole laa waa Everest production. ñu ah. fexe nag lijjanti loolu ndax nag damaa bëgg nag ni Omaro bokkee ca boobu label ah. yow nga bokk ci boobu label ndax label boobu am na solo lool ndax ndaw yi rek a tax mu jóg a jëflanteeg ñoom ndax ñooñu ñu ngi ñuy seetaan ñu ngi supporter émission bu baax a baax a baax comme émission àddina la koo xam ne dina fi jaar rek am nga chance dugg ci boobu label désormais ñoom ñooy tourner clip bi alhamdulilah après waxtaan ak Jules Teranga ah, mon manager su waxee waaw rek wax nañu waaw su waxee déet wax nañu déet xam naa ne waaw lay wax ndax lu suñu njëriñ la kon nag noonu Everest Production man maa leen di batale ki nga xam ne ne moom mooy Mandiaye Seck mii ak jui manager mu fas yéene jëflanteeg yéen ngeen def lu am solo ndax nag yéen a ngi jàppale jeunesse bi ah ah bés boo da nga xam ne am nañuy jàppale jeunesse kon nag carrière bi fu ne nii man nag dama la soxla fu ne nii ci côté tamit international ah <laughs> alhamdulilah rabbil alamin kon waa tim bi dootuma leen amande amande zéro dina amande téléphone bi ubbi na allo allo allo soxna si noo def ça va bien man man la Bintu Bintu Faye muy Bintu Faye Bintu Faye. allo. Mm-hmm. allo man Ndiaye. na nga def. ça va bien. ñun kontaan nañ trop ñun waa Las Palmas. ndeysaan. man Ndiaye sama mag bu baax la. dëgg la dëgg la. ma koy ñaanal nag succès bu bëree bëri. amiin allahumma amiin waay. amiin yàlla jàppale ko bu baax a baax nag ñun ko bëgg. allahumma amiin amiin bintu ku baax la bintu ma mi ngi woote. nag sama rakk la. Mhm. rakk la ci Jules Teranga. muy sama rakk xol. ndeysaan mu bëgg la mhm. ma koy féliciter encore. Mhm. ndax am na bac. ah félicitations ma chérie ah. yow moom tubaab kàlla di ko ñaanal baax. di ko ñaanal yàlla def mu yeggaleeg jàmm. ndax sama rakk la amiin yaa wala mhm. bintu na nga yeggale ak jàmm waaw <laughs> ah. waaw Pape Sayer moom kañ ma ko indil ndax da nga yàggale ak jàmm gi daal <laughs> bëgg naa ko fexe fii ci biir Pape xam man fii vacance de ouf la lépp luy ufante rek dañ ko fiy ufante <laughs> loolu laay def léegi nag ma Ndiaye dama ñëwoon euh, téléphone bi ubbi naa donc laay s'il te plaît affiché leen numéro téléphone yi pour que gars mun koo jël mën a mm. composé voilà il faut ngeen affiché ko ba mu baax donc dama doon wax ne léegi gis naa ne instant bi yow euh, li ñu naan téye nga Sénégal téye nga Sénégal mm. ndax yàlla def na nag Sénégalais yi bëgg nañ la mm. sénégalais yi bëgg nañ la pentola mi nga xam ne yaa ngi fay tëgg chaque mercredi macha allah day mm. fees dell bay tuuru mm. Mm. donc nag xale yi sax ñu ngi laaj yeneen date yoo xam ne pour nga koy def waaye nag wax ji mooy waa bitim réew dañ la soxla waaw bitim réew eh, wax dëgg yàlla mm-hmm. ñu ngi woote mm-hmm. eh, ñu ngi woo sama manager mm-hmm. waaye nag lu jot yomb dëgg la ndax dara jar sa yàkkamti alhamdulilah tournée internationale yëpp dinañ ko def bu soobee yàlla dëgg la Eh, ndax eh, taalibi Sëriñ Tuubaa moom. Mhm. amul dara loo xamante ni da koy kii. voilà nañu nekk ci ligne bi allo allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna déglu ak téléphone bi nga fay télé bi s'il te voilà da ngay fay télé bi nga déglu ak téléphone bi si day def interférence nan nga tudd ak fan nga ñuy woowee. ndax defe naa waa tim bongo de ñoom day ñàkk lañu kees a ñàkk kees a goo xam ne ah. su leen xawee affaire bi xawee soof dañ koy coupé léegi yéen soo leen seetaan télé bi dimbala wax téléphone ak mandiaay day xaw a metti mm. donc da ngeen ni soit ngeen pousse déplacé wu jël téléphone bi woote pour ñu mën a déggante comme ça waxtaan bi gaaw Aïcha ñu jël kii allo allo allo salaamaaleykum voilà très bien je suis fière de toi noo def maa ngi fi alhamdulilah mais maa ngi damay leb tur bi nag Aïcha waxal neex waaw xam nga man xaw ma sax émission damay seetaan émission bi rek sama xol moo sedd si kii xaw ma mu tudd Mandiaye. Mandiaye Seck. Mhm. Mhm. je waaye dafa am benn kàddu bu ma koy dénkaat rek. comme ni ne Baye Fall taalibe Serigne Touba ma koy ñaan rek diggante moom ak waale bi ko dara yàq. dëgg la parce que àdduna dañoo garaaw nit dafa nit dafa lëndëm. dëgg la Sénégal nit ñi dañoo seytaan saytaane. Mhm. waaw ñi ma ko war a wax nag maa ngi tuub tey jégalu. dëgg la ndax manta sax ma du déglu musique du ma déglu waali du ko déglu moom du déglu kenn man yaay Fall laa Serigne Touba rek ma ñor. Ah, akasa akasa kontaan nañ ah euh, soxna si wax nga am kaddu yu am solo yal na la yàlla fay ci kaddu yu leer yi nga xam ne ne jël nga sa téléphone dippee ko waa may ko waa àddina may ko nag ak ki nga xam ne ne moom mooy frère am hmm. Waly Seck dara du mës a ñaaw Mandiaye. waaw c'est mon grand hmm, hmm. xarit la wax yàlla. ndax. Euh, ku ñàkk ñaan la. Mhm. ku yéwén la ku baax la. alhamdulilah mhm. di fàttali ni Sénégalais yi rek. Mhm. sama première voiture oto boo xamante ni moom laa njëkk a dawal. dëgg yàlla moom ma ko jox. alhamdulilah rabbil alamin. loolu moom defe naa leeral ku ñàkk ñaan. kon sama xarit la. c'est jimo jumeau. Ah, sama lépp la wax dëgg yàlla. vous vous ressemblez allah ku xam na ne yéen a bokk ndey ak baay dara dindiwul loolu allo allo. allo waaw ça va. ay waay xam naa ne la yéen daal bëgg ngeen ma sekk rek aloo soxna si noo tudd. déet xanaa télé bi nga wàññi ko rek wala nga puus ko allo. voilà donc euh, xam nga ñi nga xam ne dañuy woote il faut que ngeen di puus télé bi di waxtaan ak téléphone bi pour que ñuy mën a waxtaan lu leer te gaaw ndax heure bi dafay gaaw te li ñu des bariwul te bëgg naa yéen ñëpp ngeen dugg saafantoog Mandiaye saafantoog euh, am ak Ibrahima ci li nga xam ne moom la ñuy jëflante alors. donc donc dama ne euh, mënut a ñàkk ma jaay il faut nga yëkkatiwaat benn affaire tuuti ndax nag yaram yi ma ngi bëgg a sedd dama bëgg mu yëngu xale yi daal la gungewaat ci loolu ay ca ñu ngi lay déglu soxna boomi baali yóbbu na ma tuba jibalu sukura ci tànki sin abdu xaaba alhamdulilah rabbil alamin sama xol frigidaire na congélateur na te xam naa ne ni sama xol frigidaire et congélateur yéen mbokk téléspectateur yéen seen xol mm-hmm. dafa frigidaire congélateur réfrigérateur lépp a ngi ci biir ventilateur climatiseur xanaa loolu neex na dama ne am dimbali ma heure bu ma nekkee sama biir waxtaan rek nga bëgg maa wax ne jeex émission bi jeex na am génn sama émission am sonal nga wax yaa laay Sarr ak élage ak leer sonal ngeen ñu génn na suñu émission parewuñ maa bañ jeexalu ma tëju ma xanaa ma jël mbokk téléspectateur bi allo allo allo oui soxna si noo def. lii di si jàmm. pardon dégg dama dama dama si dama dama yéen. soxna si baal ma dégguma bu baax wax ji leerul soo mënee répéter li nga wax rek si te plaît. waaw man la man Laye. la man man dama yeewu te daan dama yeewu tombé ci émission jërëjëf kontaan euh, na waaw dëgg la dëgg la. ah mun naa mun euh, réseau bi moom moo xawul baax tuuti Mantulaay wala Ramatulaay. Euh, bu dee mën nga xool tuuti. Ramatulaay Ramatulaay. Ramatulaay exactement. allo soo mën a déplacé woo tuuti rek réseau bi mooy xaw mooy xaw a def problème s'il te plaît si s'il te plaît. soo mun a déplacé mu. allo waaw Aïcha yaa ngi lay dégg. maa ngi lay déglu Ramatoulaye maa ngi lay déglu bu baax allo maa ngi lay dégg. maa lay dégg vas-y on t'écoute. waaw mën na ma mën naa waxtaan ak tuuti ma Ndiaye Seck. Aïcha Aïcha yaa ngi Ramatoulaye na nga def. ndeysaan Ramatulaay très bien eh, maa ngi lay nuyu bu baax man aussi maa ngi lay gërëm mhm. kontaan naa ci woote bi nga woote mhm. waaye dama la invité tey nga ñëw Pentola jërëjëf na nga ñëw Pentola tey mooy mhm. devant Liberté 6 na nga ñëw incha allah dinañ gisee bu soobee yàlla dégg nga kontaan naa ci yow mi ngi noonu kon nag Ramatoulaye nag moom moo woote waaye nag xam naa réseau bi moom mooy def défaut waaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax a baax di kontaan ci yow hmm. kon nag Mandiaye jox na la rendez-vous tey pentola tous les mercredis la donc yàlla def na tombé tey mercredi bi ngeen fas yéene def nag maam ko nag vacances la ñu nekk donc nañu happy donc euh, Mandiaye damay bàyyi nga def sa dernier moom ndax émission bi jeex na hmm. euh, ñu daal di nuyoo ak xale yi ñu daal di tëj waxal maa ngi lay déglu waxal ak àddina sax nag àddina waaw sama dernier mot nag mooy que du ma jug di gërëm ñi nga xamante ni ñoo may jàppale. dëgg la muy ñoom bari. Mhm. moom mi nga xamante ni fu ñu lay dem ndax ma ñaay sekk. dëgg koy sant bu baax di ko gërëm. Mhm. di gërëm Momo. Mhm. ak Pape xam nga. ji gërëm aussi euh, Cheikh Gueye. muy rakk ci Mami Gueye. sama jigéen sama xarit. may gërëm staff bi yëpp. su ma limee damay juum. ñoom am benn Ndiku Ndiaye. mi nga xamante Euh, bëggul ma Ndiaye sonn ci dara. dëgg yàlla sama xarit la. Mhm. sama lépp la. jërëjëf ma koy sant bu baax di ko gërëm. jërëjëf di gërëm amee Niang. Mhm. di gërëm Jules Teranga. Mhm. sama xol nag tooy na. ndax wax yàlla amul lu ñoom. ñu nekk sama ginnaaw. damay jàppale. ñu def ngir man lépp wax dëgg yàlla. Ah? maa ngi sant ñëpp di woo ñëpp tey nag Pentola. Pentola incha allah. Mhm. deux voies Liberté 6. Mhm. di woo waa 2S ñoom ñëpp caméraman yeeg. ñëpp ñëpp ñëpp dama bëgg ñu ñëw tey soirée ah. waa Tim Bongo waaw waa Tim di woo sama gars yi. da ngeen ñëw tey. <laughs> dégg nga Ablaye Ndiaye voilà Tim la bokk mu ngi noonu kon nag Mbadia ñu ngi lay jaajëfal Aïcha Ibrahima ñu bàyyi la ngeen tàggu. maam Cheikh la. waaw maam Cheikh maam Cheikh waaw. yow la nag moom ñun nag moom dañuy sant rek waaw dañuy sant rek di sant suñu waa dëkkandoo yi waa Minna. Mhm. di sant suñu suñu waa kër. Mhm. ñun amuñu fay. Mhm. amuñu fayu kenn barke yonent bi parce que lii nii. aaru bongo bi ni ñuy def. defuñu ko ngir bon. defuñu ko ngir wër di taxawaalu. ñu ko pour di wër ci xew yi. barke yonent bi. rawal yàlla ji moom dëgg la bëgg. dañuy rendre hommage ak suñu benn xarit suñu doomu ndey. Petit Sagna. yàlla na ko yàlla xaaree àjjana. day bongo. Mm-hmm. xale bu ndaw la. Mm-hmm. barki Demba Ndiaye lañ ko invité woon ci Amina Poté. dëgg la TFM. dëgg la Petit Sagna. dëgg la ndeysaan. suñu mbokk la suñu xarit. dafa baax ndeysaan. dëgg la bi nag 78. waaw loolu laa 417 56 51. mi ngi noonu waaw waaw mm-hmm. sant rek. waa Mbacke. santal gaaw waa Mbacke waa sant Babs King of Neige. di sant waaw. àdduna gépp la sant sama ñaari waajur tamit sant waa Daaru Salaam sama magar gaa ngi waaj ñëw magaru Daaru sant waa Mbàkke gépp nag sant ndax nag àddina ku la defal lu baax danga ko war a sant donc loolu la xale di def nii dañuy xam ne ne heure bi moo man nag maa ngi remercier ki nga xam ne ne moom mooy Fabine Fabine Fashion Fabine Fashion moom moo génn fii tey ci tenue bi démb Fatima Sène la moom moo génn ci tenue bi ak noir moom moo de téléphone am euh, ngeen koo jot aussi ci WhatsApp bi donc képp koo xam ne mi ngi Milan Bamako New York Paris yi mën ngeen jokkoo ak moom Facebook am euh, Fabine Diop la Facebook bi Fabine Diop modèle yaa nga fa lépp a nga fa lépp a ngi suus ba fa jëb gi ma ngay soos tim bi moom tim bongo Lay Sarr la kooku Ablaye Ndiaye lañ koy wax kooku El lañ koy wax ak ki nga xam ne ne aussi moom mooy leer bu Seydina am moom